Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, tous vos collaborateurs, merci d'être là. Par parallélisme de forme, si on a le droit de critiquer, il faut reconnaître à l'autre le droit d'apprécier. C'est la moindre, c'est ça la démocratie et l'élégance. ku deful dara kenn du la wax dara monsieur le ministre je l'ai pas dit c'est dans le rapport malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'assister aux travaux en commission en parcourant le rapport il a été dit que votre budget dans un temps record a doublé voire triplé c'est du factuel on ne l'a pas inventé nous vous félicitons et mieux encore Je me veux, je m'implique cette loi et je vous invite à le faire. Quand on est élu, il faut suivre l'action du gouvernement. Il faut aller sur le journal officiel pour apprécier. Merci pour cette dose de transparence. Je dis, l'histoire des mines était une affaire de technicien était une affaire de salon. Vous avez paupérisé ce débat. C'est devenu une affaire de maison. Les gens en discutent parce que c'est un secteur qui évolue. Merci de l'avoir bien géré et nous demandons au ministre des Finances. Voilà des ministères qu'il faut accompagner parce qu'ils ont fait des résultats et dire au président de mettre encore des sous et de remercier de président de renouveler sa confiance sur votre personne. dama ni ku liggéey dañ laa war a jaajëfal dañ la war a accompagner bañ aussi comme ni ko wax léegi j'en profite pour saluer cette lucidité du, ministre, euh, du maire, député maire Abbas Fall, qui salue parce que takk say bët ne du ma voté parce que lan ministre bi neexuma non toogoo fi pour sa bopp askan wee fi tax ñu toog ndax li ñu bind amal na njëriñ askan wi pas boo àndul ca boor bee da nga ko war a woteel ndax askan wala fi anti sinon on est de train de projet des projets d'intention ndax li ñu bind li ñu nattal ministre bi amal na njëriñ gox ba ñu yebal am déet bu dee am na dañ ko war a wote munoo ñëw taxaw fii laaj ay doléance nit ne damaa bëgg ñu defal ma te kañ ko war a def foog ñu nattal ko nga ne li ñu war du ma ko voté parce que lan jot naa qu'on signe camp ou clan il va falloir qu'on s'arrête et qu'on évolue dans ce débat là nit mën na bañ a bokk far ak yow mën na sar la nga def ca la ca def suñ la nga xam ne des naa baax mu jëm ko corriger ndax yàllaa ñu bind te matuñu loolu monsieur le ministre je te salue sur ça et je t'encourage dama ni on a réglé le problème de cadrage parce que l'esprit de la loi 2016 du 10 2016 10 du 5 avril 2016 cet, cet esprit là malheureusement dama am un défaut bu bu may wax bu keneen di wax du ma dégg ndax man nit suy wax damay noppi Et là aussi, je le demande à tout le monde. J'ai dit Abbas, l'Akoumay arabe, tout le monde laisse tout le monde, sans exception. Je suis dans cette posture-là. Cela nous grandit parce que c'est des moments d'émulation, c'est des moments d'écoute, c'est des moments d'appréciation. Le peuple nous écoute et ce défi-là, nous devons le relever ensemble Nous avons plus intérêt parce que nous avons un bilan à présenter. Nous avons des projections à faire par rapport à ce qui a été fait. Voilà deux jours qu'on évolue. Voilà deux jours qu'on apprécie ce que le gouvernement est en train de faire. newuñu lépp baax na waaye li nit ñi wax mooy ni nañ leen gën a bàyyil xel seen miin yi nañ gën a bàyyi xel mooy nangu nañu liggéey am na nañ làbbali mu gën a baax et on est d'accord dans cette logique là parce que loolu mooy idée de perfection mais damay taxaw un instant parce que olof Njaay day faral di wax ni ku yokkul wàññi genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko danga def une chose qui est historique au Sénégal mu fàttali ma benn mag mu baax nekkoon leader nekkoon président fii yàlla na yàlla guddal ay fanam maanaam fonk ndaw fonk jigéen dans l'histoire politique du Sénégal vous êtes le premier ministre à prendre une fillette qualifiée préparée et en faire un chef de cabinet muy Yande Diop c'est une première wane la vision la l'avenir c'est préparer cette jeunesse là pour que demain ñu bañ a doon xëy ni cëpp un pays on le prépare par en préparant sa jeunesse merci d'avoir choisi Yande Diop qui est une référence en politique et dans la vie de tous les jours pour en faire votre chef de cabinet yoon la ñu ngi la ciy remercier waaye waxal président de la république ni ko yëg nañ li mu def sur votre proposition mi faire so Abdou Aziz Diop gëm nañ ni feer bi dana génn danañ ko liggéey ndax ay ndaw lañ yu am xarañteef nangu liggéey bi loolu ñu ngi la ciy encouragé bu baax dama ni le véritable enjeu xam nga mooy lan ñu def plaidoyer sunu secteur privé bi ñëw attaquer les mines ndax nag fu kenn newul jàmbur day ñëw on est à l'ère de la mondialisation munoo ni du ma ñëw damay tere keneen ñëw comment faire te loolu ñun député yépp ñun acteur politiques yëpp ñun hommes de médias yëpp ñun ñoo ci war a liggéey la presse en premier inviter notre secteur privé à investir davantage da parce que nag le cadrage est fait dix pour cent vingt cinq pour cent au plan ONERA nañ fexe ñun secteur privé bi dugg ci c'est comme ça qu'on récupère le marché national c'est comme ça qu'on devient souverain waaye comme yóbbante àq la waa lalu urus ku fi ne te jënd or dëkk Ndakaaru yaa xam nga ci dara lal ursu Sandaga siiw na ñoom itam nee nañ ñu bàyyi leen xel bu baax nga wax leen président de la république ci yërëm bi mu leen yërëmoon ni leen Sandaga ñoo ngi xaar ba léegi Sandaga poumon la euh, digression la mais c'est important parce que foofu lañu bëgg a def nag benn pavillon d'or ba nit ñi di jógee Gambie di jógee Mauritanie di jógee Mali di ñëw di ko fi jënd si fii loolu mooy développement waxoon na ko ñu ngi ko ciy xaar na jàppale nit ñi ci wàllu woowu foofu la ñuy tëjee di la encourager sëñ Omar ci li ngay liggéey ak pat am na ku fi wax léegi nee na yaag Pape Diop da ngeen dem yéen bëccëg ngeen dox fii am na ñu fiy toog di wax lu ne bu ministre génne ñu koj ko il faut être sincère dans les discours sincère dans les positions nit gis nga soo bëggul nel bëgguma soo bëggee assumer que mu mat ko te lenn mooy ñor mooy le Sénégal et on va assumer cette position la continuer à travailler keneen ku am leneen jëlal et on le fait dans la contradiction et point barre dóore wuñu xaste wuñu saaga wuñu li ñu am mooy que ni quand on défend un pouvoir on étale son programme ku ci àndul nga andi des contre euh, propositions bay Sénégalais yi apprécier mais boo taxawee fii yaakaar ni yow dañ leen di nax yéen Sénégalais lañ wax gis nga li xew ci plat ci tribune bi bu ngeen duggoon ci restaurant bi beneen schéma moo fa am nit ñaa ngi kaf nit ñaa ngi ree nit ñaa ngi demalante parce que en réalité mooy loolu du tee nag ku am gis-gis. ma ni pataas sama gën a pomiteer jarta xuloo jarta saaga d'accord wax ko ci kaw yar ci kaw yiw ndax ñëpp ñuy seetaan on a été des privilégiés choisis parmi les sénégalais nañ ko wane ci mat wane ko ci dayo vive la démocratie vive le débat maa ngi sant la gërëm merci monsieur le président je termine par vous parce que vous ma rappelez merci chers collègues je termine par vous monsieur le président ya y a quelques jours j'étais un spectateur de ce qui Je vous ai apprécié de loin. J'admire votre pondération. J'admire votre sens de la mesure. dégg nga fi lu ne mais patt day faj. Le silence est un discours. Le silence est une attitude. Le silence rehausse mais da nga may fàttali sama kilifa le président Pape Diop dama ko waxoon démb te matul daa jël décision bu mag ci réew mi taxaw assumer ko ñu tegaat foofu sunu tànk feddali la mu waxoon ni Sénégal bu tànn jotee. da ngay ànd ak ña nangoo liggéey da ngay ànd ak foo xam ne ni bu ëllëgee kenn du la xeeb kenn du la xaxar ça ne veut pas dire que nu ne respectons pas les autres mais démocratie mooy boo amee fu laak fayda ànd sa yoon ma am fu laak fayda ànd sama yoon ngeen respectel mon choix monsieur le président c'est seulement de sa par cette manière que vous allez administrer une grande leçon à cette assemblée qui dès le début a fondé beaucoup d'espoir mais malheureusement à ses premières heures a déçu beaucoup de Sénégalais de par certains comportements qui ne nous honorent pas, quelles que soient les raisons avancées. Nous devons être ceux-là qui doivent imprimer la posture, l'attitude par rapport à une jeunesse qui doit s'inspirer de nous pour faire de Sénégal là un modèle de développement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.